man bokkuma ci opposition de. ci ñoom Sonko laa fàtte. ah bon la. moom moo taxawoon ne moom du ànd ak ku dul gañe. moo taxoon mu dem ànd ak Amadou Ba. man ci nguur laa fàtte man bokkuma ci de. ci ñoom Sonko nga fa ci ñoom la. opposition mooy man maa doon Macky man ah Amadou Ba laa doon jàppale ci yàlla. man doo fay location. li ma yor maa ko moom. dama ko liggéey ba nopp bëgg ko bokk askan wi man bugguma nguur. pare nga pour gunge régime bi fi ne. dama leen di gunge si laa bokk. Ah, eh, taxawal nag mais eh, honorable daal ne mu ngi nee na bokk na ci nguur. at

Ousmane Sonko bu génnee nekk candidat day gagné wala ki maanaam day gagné xam nga xamoon naa parce que yàgg naa wax ay émission ne Ousmane Sonko dana génn balaa élection mhm. mhm. yàgg naa ko wax. mais lan mooy ndey kon ma xam loolu bu pare jëm ànd ak ñoom candidat bi tànn lan ma war a lool loolu mooy li ëpp solo ci laaj. mais mais gisoon nañ tamit nga ne loolu mooy acte républicain. Mhm. Ousmane Sonko lu ñu bokk moo ëpp ak lu ñu séq ay affaire nguur ak affaire député. parce que ba and ànd ñu ñaar nekkuñu député ba ñuy bokk boobu xamul won sax dante daante ensemble Assemblée ma bokkon ci ñi nga xamanté ño nekkon bouclier ba Macky Sall mu ton jot ci mom. Mhm. loolu pourquoi ma. ni ba tey ma di ko bàyyi yaa koy am ak Ousmane Sonko ba liggéey. ba tay amul Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu ndey la ñi ngi déggante ba fi may wax ak Bañ ko nommé premier ministre ba légui nga wax. ba légui ñi ngi wax. mais est-ce que du honorable loolu moo tax des gens des députés comme Nafissatou Diallo bo défé ni ñu def leneen jàpp ne peut-être amoo une position figée. mais man loolu mooy li ma war man waruma contre mm, koo xamante ne maa ngi ñoo àndoon parce que bi may jàppale Ousmane Sonko booba ñoom jàppale wuñ ko woon. Mm-hmm. léegi ñoom normalement ci lu logique bi ñu war a nekk mooy ñoom ñoo jàppale Diomaye si seen coalition. Mm-hmm. ba mu nekk président la République. Mm-hmm. mais kan comme man maay défendre entièrement Ousmane Sonko ak procès bi ñoom ko war nañ ko défendre. mais bu fekkente ni tey dama nekk ni koo xamante ni kenn mënu ma contrôler parce que li tax. mooy dama dut man dëgg laay doxal. askan laa fi nekkal réew mii ma tax a jóg man soxlawuma poste soxlawuma alal mhm. soxlawuma nguur sama tur siiw na ba pare te bu dee bës la ñuy wut ñoom suñ tuwaa jox na ma bës boo xam du dañ mhm. mooy Ousmane Sonko dañu ko fi tuumaal man ma ne ma ma nekk assemblée national ñu xott samay tu sama yére ngir Ousmane Sonko saaga ma ngir Ousmane Sonko mhm. tëj ma gasa ngir sonk Sonko nangu samay kër ak samay entreprise yëpp ngir Ousmane sonk mais kooku dinañ xool ba proce bi ñëw ma jël sama engagement ak sama waxi gor ma ne ko yow boo nekkee candidat mhm. man du ko doon mhm. te yow laay jàppale mu ne moom boo nekkee candidat yow laay jàppale waaye ñu ñaar ñëpp bu nekkul candidat nañu toog choisir no ban candidat mhm. la ma waxoon defu ko bu choisir candidat te waxuñu ma ko seet si wun ma am naa sañ-sañu seet Amadou bi nga xamante am na projet pour Touba ma ànd ak ngir jëmi Touba mais loolu foofu la yam mais teewul relation yi ma am ak Amadou Ba loolu laa am ak Ousmane Sonko. wala lu raw jamono jii de ñoom ñooy doxal est-ce que buñ la woowoon pour euh, nga collaborer ak ñoom jox la ab poste. pare nga pour mais lan si mhm. nguur gi hmm. ah. Ah a la séparation de pouvoir yow bokk mooy exemple régime bi. Mhm. yaa ngi jàppale régime bi yaa askan wi parce que tey mënuloo maanaam ne cinquante cinq pour cent virgule vingt huit fal leen yow nga nekk député de peuple askan bi fal la ngay nekk di leen contre. foo koy mais boo ko ñu leen fal yow moom defe naa Amadou Ba nga voté. waaw man Amadou Ba ak avec plaisir ngir Touba. Mhm. waaw bu doon suba ma defar ko. am amoo ci benn regret quoi. lu ma si regretté. Mhm. alors Touba moo ma gënal Amadou Ba moo ma gënal Ousmane Sonko moo ma gënal Sénégal. Mhm. Touba laa wax. te mun Mountakha moo taxaw wax ni dafa bëgg ladde guerre bi ñëw tuuba Amadou Ba ñëw nii sëriñ mun Mountakha li nga bëgg dinaa ko def ba ma gagné réew mi. ni ma Cheikh Abdou jàppale ma ngir Sëñ Tuubaa bi nga xamante ni moom li mu bëgg dinaa ko defal jàppale ma Ousmane Sonko mii nekk si kaso bi nekk sa xarit te nga yàgg xeex mu génn bu ma gañee réew mi dinaa ko génne mais ñaar yooyu bu la ko nit tegalee da nga gor te bëgg réew mi doo ko def bu doon suba ma defaat ko. nga defaat ko. maa ngi remercier waa Touba di remercier aussi tamit. ñi nga xamante ni ñëpp comprendre na Cheikh Abdou Bara Dolly li nga xamante ne sacrifié na jëmmam ngir Touba. Mm-hmm. bu ma askan yëpp mere woon te Touba jox ma bopp jaral na ma. Mhm. alors bu ma Touba yëpp mer woon mun Mountakha bëgg ma fonk ma jox ma boppam te man réeruwuma ak sëñ Mountakha. nañu parteem ñu ngi fexeel bu te xam naa man ni ñu informé ñoom noonu laa informé ma ñu ngi may fexeel mais. salaam salaam gars yi. maa di ziar bu baax a baax a baax am ngeen jàmm gars yi abonné leen di like vidéo bi di partager yéen ma gën a xam mais gars lan ngeen xam ci li ab ab du baara dool li wax lan ngeen xam ci lum wax wax Cheikh Abdou Bara Dolly nee na xamoon na ne Sonko dafay génne te bu génnee day gagné élection yi nee xamoon na ko quoi man te moom moo taxawoon ne moom du ànd ak ku dul gagné moom moo ko waxoon quoi moo tax moo taxoon mu dem ànd ak Amadou Ba. waa Cheikh Abdou Bara bi est-ce que moom dafa jàppee nit ñi ay dof wala moom lu mu jàppee nit ñi quoi nee na ci pouvoir bi la nekk moom nee na opposé wul kenn nee na lan mooy opposition nee na xamul loolu quoi pouvoir rek la xam nee na moom ci biir pouvoir bi ndax bi xeex jotee génne na xeexal Sonko bàyyi ko fii dem ànd ak Amadou Ba te xamoon na ne Ousmane Sonko mooy gagné gars yi déglu leen wax ji bu baax a baax est-ce que kii lu muy wax nii yenu na maanaa quoi yow est ce que yow da nga bëgg ndam da nga bëgg ndam xamni ki day gagné nga xamni ki day ñak yow nga dem and ak ki nga xamni day ñak election yi yow da nga def lolu est ce que dafa jappé nit ñi ay daf xawmu lu mu jappé nit ñi quoi bëgg dox ci kaw xelu nit ñi yow fekkee da nga bëgg bok yow bok rek mo gën ngay wax tu waxon nga fi ay wax yu bari yo xamni ñoo ngi fi ni nga won basiru jomay fay gëmul serigne touba amadou ba dafa gëm serigne touba loolu motax do jappelé basirou basiru fay ndax gëmul serigne touba loolu ya ko wax ne nga yow xaritu ousmane sonko nga xamanté ngeen lu yag ne nga li len bolé sax dafa ji li len bolé dafa jitu politique ya wax loolu noonu ne nga ba légui ni ya ngi dégganteeg ousmane sonko ci say wax man mom gëmu ko yow li ngi wax basirou joomay fay euh, ousmane sonko genn tan basirou joomay fay muy candidat nga génne xas Bassirou Diomaye Faye nga ne bëggul sëñ Touba gëmul sëñ Touba moo tax yow doo ko jàppale léegi nga wëlbatiku ci pouvoiru Bassirou Diomaye Faye nga nga ci pouvoiru Bassirou Diomaye Faye nga bokk yow <laughs> est-ce que ñoom danañ la bàyyi nga bokk ci seen pouvoir yow yow neen neen opposé woo kenn yow waa am nga ci droit quoi am nga ci droit bu la neexee tamit nga ne yow ci pouvoir bi nga bokk yow bu la neexee nga wax loolu ndax ñi nekk ci pouvoir bi yow danañ la boole ci pouvoir bi kay lay xalaat ndax ñoom xam nañ ne yow li ngay wax gëmoo si dara nga si gëmul ko loolu ñëpp xam nañu ko Cheikh Abdou Bara moom dafa jàpp ne moom moo ëpp gaa yi xel moom nag su bëggee gaa yi gëm ko lu mu wax ne man seetu sëriñ Touba laa man waa Touba laa bokk sëñ Touba na ma lii defal na ma lee loolu taxul ñu gëm la quoi ñun ci politique lañ nekk nekkuñu ci affaire affaire affaire affaire yi kii quoi affaire tarixa affaire yooyu gars yi politique la ñuy wax waxuñu ci affaire kër diine ci politique la ñuy wax quoi bu fi dugal ay kii mooy sama maam kee mooy sama maam loolu taxul ñu gëm la loolu taxul ñu topp la yoon nag dama jàpp ne yow est-ce que yaa ngi fàttaliku say waxi démb. Cheikh Abdou baar yaa ngi fàttaliku say waxu démb yow yaa ngi siy bàyyi xel bu baax a baax bi nga defee conférence de presse Touba nga ne yow jàppale woo siiru Diomaye fay Amadou Ba ngay jàppale ba gars yi nga xam ne ñoom nga invité woon ci conférence bi sax ñoom ñu lay yooxoo yaa ngi koy fàttaliku bu baax a baax te jii nii nga ñëw nii nga ne yow yaa ngi ci pouvoir bi ci pouvoir ba nga bokk bi jéem a teg nit ñi xel quoi yow <laughs> cey Cheikh Abdou Bara fekkee da nga bëgg trajimi rek jawal quoi ñëwal xamna gaay mën nañ la xatal mën nañ la baña xatal loolu dafa leer fekke nak jub jubal nga bëgg quoi mën nga and ak ñom liggéey comme ni mako ko ci sama vidéo bé passé waaw comme ni mako ko ci Mansour Faye waaw mom néna na Ousmane Sonko day ñëw ndar nañ ko tertu affaire wax na wax bu rafet quoi wax jo xamni ñun mën nañ ko dégg d'accord nañ ci ak mom xaar bi dafa jot mu jeex. yow nag so waxee dara mosuñu la gis nga xeex mosuñu la gis affaire yooyu yaa ngi noonu rek yow sa làmmiñ nga yor di wax def naa lii def naa lii def naa fee kenn mosul gis preuve waaw sa benn nit mosul génn ne Cheikh Abdou Bara def na lii def na léegi yow daal yaa ne yaay def yaay génn wax ko amuñ ci benn preuve mais yàlla baax na sama gars yi da leen abonné di like vidéo bi di partager bëggee naa leen bu baax a baax sama gars ci beneen vidéo jaajëf